إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit yi tedd yi ñi ngi sant suñu boroom di seede ne moom dong yi yoo ñu koy jaamu di seede ne it mbooli mi jaam seen lépp ci loxoom la nekk moom mooy bind lu ko neex mooy wërsëgal num ko neexe mooy nattoo num ko neexe jalla wa ala looloo tax ba yëglin ne ay mbindaa fanu yàlla ngeen te yàlla day sotti na ci yéen ay xéewalam xéewal yooyu moo war ci ñun ñu sant ko ca jalla wa ala looloo tax jubluwaayu xutba tey bi mi ngi nekk ci ana naka la ñuy sante xéewalu borom bi jalla wa ala yégal yow julit xéewal gi rëy gi la yàlla defal ci kaw suuf mooy bi nga xamee ni nii boole na la ci julit ñi may la lislaam waaye may la la nga xam ne mooy ngëm loolu mooy xéewal gi tiim xéewal yépp mooy xéewal gi ëmb xéewal yépp ki ka am daanaka ñàkkatul dara ki ka ñàkk ci àdduna boo dajale woon mboolem nguuru àdduna it perte na amul dara waaye gannaaw loolu mbokk julit yëg leen na suñu borom yàlla xéewal nañu ci jàmm ci suñu réew ca loolu day mbokk su doon te da nga laaj waa histoire nga laaj li xewoon ca première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ëmboon àdduna yëpp wala ngay déglu xabaar yi di xew xool lay xew ca Palestine di xew lay di xool lay xew ca Syrie ca Irak ca Libye ca Yaman ak dëkk yu dul yooyu ñu bari ci ñoom nga xam ne du ñu nelaw guddi amuñu fu ñu yëndal amuñu fu ñu fanaanal famille ya tasaaroo nañu kër ya màbb nañu liggéey ya yàqu nañu ay weer doo gis ndox doo gis courant mbokk loolu bu la yàlla wërsëgalee nga nekk ci réew moo xam ne jàmm jàng fa dal amuñu lenn lu ñuy tiit wala di ko ragal loolee daa jar ñu sant ci yàlla suñu borom yàlla wërsëgal ñu itamit boo delloo gannaaw tuuti ci loo xam ne matagul téeméeri at am na loo xam ne nii histoire wattu na ko muy la crise des années trente nga xam ne ñëw na wër àdduna yépp ba ñëw suñu réew ba Sénégal gii da ngay gis ay kër yoo xam ne amuñu lenn lu ñu lekk amuñu lenn lu ñu sol tey suñu borom yàlla falilahi alhamd bitig yaa ngi fees magasin yaa ngi fees ceeb beeg diwlin jéeg dara manquéwul waaye ku nekk ci ñun tey lan moo la jaaxal mooy yëri yi nga am nooy def ba am koo ko sarax wala koo ko jox loolu muy firi la suñu borom wax ne sotti naa samay xéewal ci yéen ci lu feeñ ak lu nëbbu asbaxa alaykum niamahu zahiratan wa batina mbokk loolu xéewal yu rëy la yoo xam ne nii nag ba ko yàlla defee da caa dolli na ah samay xéewal dee ngo istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid xéewal yaa ngoog de su ngeen santee ma yokk ko su ngeen weddee nag sama mbugal lu tar la mbokk sant xéewalu yàlla day yóbbu xéewal yi barkeel ko wëlbëci ko def ko yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira weddi xéewalu yàlla da koy wëlbëci def ko fitna ñeel la loolu nguur lam alal lam njaboot lam lu mu mën a doon loolu moo tax ba ñàkk sant xéewal mooy indi tiitaange cim réew muy indi feebar yi jaaxal nit ñi muy indi xiif muy indi leneen lum mën a doon su ko defee suñu borom yàlla mi ngi noonu mooy jéggalaate ca mooy baale mooy xéewalaate ñu war di ko sant fu ñu mën a toll doonte ne mbokk sant xéewal yooyee doomu aadama yu bari xamuñu nuñ koy defee mbokk sant xéewalu yàlla nañu xam ni loolu diine la diine nag dañ koy jële ci yonent yàlla ba subhan sallallahu alayhi wa sallam di ko jële ci téereb yàlla bu tedd bi suñ demee ci téereb yàlla bi suñ borom mi ngi ñuy gëmloo ni ngallaway nangu leen ca xam ni wa ma bikum min ni'matin fa min allah jullit da ngay gëm sa jëmmi ji li ci nekk ci xéewal ci yàlla la jóge yàlla def na maa ngi nii jóg taxaw sama moroom yu bari mënuñu loolu maa ngi gis sama moroom yu bari mënuñu ko maa ngi dégg maa ngi ànd ak sam xel gannaaw ba nga xool li la wër na doon loolu soxna si la njaboot gi la alal ji la kër gi la yàlla wërsëgal li nekk sa poche la lu mu mën a doon nga yëg ne lii kat laa hawla wala quwwata illa billah lii day du sama pexe du sama mën-mën lii xéewal la gu ma yàlla defal rek la am na ñu ma ëppum njàng fuuf ëpp ma doole fuuf di ma jëkk xëy di ma jëkk wàcc bal génn seen réew dem yeneen réew ci amuñu sax fukkeelu lu ma am kon man ni ma am nan laa ko amee man ko amee ci ngéneelu yàlla xéewalu yàlla nga nangu ko ne muhammad alayhi salaam defalu la ko ibrahim defalu la ko kenn ci jaami yàlla yi defalu la ko wa ma bikum min ni'matin fa min allah waaye gannaaw loolu itamit sa lammiñ wi nga cay feeñal sant yàlla googe suñ borom mu ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis nga la way jullit buñ la waxee naka def waxal alhamdulillah ah maa ngi sant yàlla de wërsëgal na ma soxna maa ngi sant suñu boroom wërsëgal na ma doom maa ngi sant yàlla wërsëgal na ma kër maa ngi sant yàlla réussir naa ci examen ba ay mi ngi doon lu mën a doon cant ga nga delloo ko sa boroom looloo tax ci téere yu jëkk ya xeetu yonent bi ñu tuddageen xammaadiin mooy xeeti ñi nga xam ne ay cantaakun lañu fu ñu toll dañuy sant seen boroom guddi ak bëccëg ca la nga xam ne feeñ ak lu nëbbu loole mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala nag mu ni wa qalilun min ibadi shakur lu néew samay jaam moo may sant ndax kat mbokk jullit cant googee balaa doon luy mat sëkk fokk nag ba nga yëgee ni lii xéewal lu ko bawoo ci yàlla nga feeñal ko sa lammiñ ah la des nag mooy xéewalee benn par benn bu nekk nga delloo ko fa neex yàlla jalla wa ala yàlla nattu na des millions ci ay jaamam du ñu dégg yow yaa ngi dégg nga la way fexeel ba sa nopp yi doo toog di ci déglu lu dul loo xam ne lu yàlla gërëm la des millions du ñu gis yow yaa ngi gis nga la way bët yooyu santal yàlla bu te nekk di seetaan lu dul loo xam ne yàlla da ko gërëm loolu lañ lay wax ca njaboot ga ca alal ja ca lu mën a doon lu la yàlla wërsëgal xoolal la méngool ci cant nga def ko yow mi yàlla wërsëgal xam-xam bu ko jëfandikoo ngir nax doomu aadama yi bal jàngal leen la nga xam ne moo leen di jëriñ adduna di leen jëriñ allaaxira teete leen jëme leen ci seen boroom jalla wa ala yow mi yàlla wërsëgal alal alal joojee xamal ne moomoo ko suñu boroom mën a ko jox pour nattu la ko nga la waay xoolal li nga denc nga xool am na ñoo xam ne ñoom ñi ngi wër lu ñu lekk ñi ngi wër lu ñu jënde ordonnance ñi ngi nekk jaaxle ana fu ñuy dëkk loolee nga la way nga delloo sant yàlla jalla wa ala ca mooy rafetal jëm ci ñoom ni yàlla rafetala jëm ci yow lu mel noonu la ñu waxoon qaaruuna ca mooy ba mu bewee ci alam ja borom xam-xam yi na ko ahsin kama ahsana allahu ilayk rafetalal ni yàlla rafetal jëm ci yow te mooy sa alal ji bokk ko ak jaami yàlla yi loolu la ñuy wax ci yow mi yàlla may ay daraja président ministre magistrat lu mu mën a doon yàlla jox na la ay daraja ngalaway daraja yooyee dimbali ca ñi nga xam ne dañoo néew doole dimbali ca la nga xam ne mooy dëgg del farak dëgg ca moytu di farak caaxaan wala di dimbali ay boromi caaxaan mbokk lu mel nii ba baa xéewal yi di jeex noonu la ñuy sante la nga xam ni moom mooy suñu borom nañu moytu lool jël alali yàlla ji di ko def ci lu xaraam mbokk loolu safa noonu ak sant waaye nañ moytu lool jël alali yàlla ji di ko yàq loolu safa noonu ak sant jël benn oto def de plus de cent millions jël benn kër goy dukke def de plus de cinq cent millions jël ci loo xamee ni nii ay xew yàqate ci ay millions yu dul jeex et pourtant jamono jooje nit ñaa ngi tëdd ci lalu hôpital yi lan moo leen jaaxal ordonnance bi leen médecin bi bindal fu ñu koy binde et pourtant am na koo xam ne ma nga toñ-toñ ak njabootam fan lay jële ñaari néegu luyaas lañ ko laajte avance jaaxal na ko yow nga jël des centaines de millions di ko pasar pasare pour yow yaa sa doom ak mi ngi noonu lim bu néew a néew mbokk loolu safaanoon ak la nga xam ne mooy sant loolu yàq la te suñu borom laa yuhibbu almusrifin yàlla bëggul la nga xam ne mooy yàqkat yi bari na lu bari suñuy ndaw tey chaque année nga dem vacances Canada France États-Unis yàq lu jege dix à vingt millions yow yàq sa soxna ak sa ñaari doom jamono bi nga xamee ne nii am na ñoo xam ne yéen a bokk benn maam bu ñu añee duñu reer jamono bi nga xamee ni am na ñoo xam ne ñu ngi wër ana lu ñuy fajoo fu ñu dëkk mbokk loolu dañuy gis ni safaanoona ak sant yàlla jàll wa ala nga la way julit gëmal ni alal ji xam-xam bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala wàcce na ko ci yow ngiree ëllëgi ci sibir ñu laaj la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn koo xam ne dinañoo yowmal qiyaama ñu atte ko mu nar a jëm àjjana wala sawara dudul suñu borom dana ko laaj ñeenti mbir dana ko laaj waaye yow sa dund gi ci loo ko jeexal mi ngi noonu lan moo nekkoon sa jubluwaay ci dundub àdduna ci lan nga nekkoon dañ ko laaj ndaw gi la yàlla mayoon ndaw googee mooy bi nga juddoo ba baa ngi am 40 ans yow ci lan nga nekkoon fan nga jëfandikoo énergie boobu kattan googu ci lan nga ko jëfandikoo dañ la laaj xam-xam bi la yàlla xamaloon lan nga jëfe ci xam-xam ba gannaaw ba la ñu laaj la alal ji nga yoroon foo ko jële ak foo ko dépensé gis ngeen laaj yu njëkk yëpp dañ lay laaj ba mu des alal alal dañ lay laaj min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa alal ji foo ko jële nga régler loolu ba mu jeex tak mille francs ba milliard gannaaw ba la ñu laaj foo ko def nga taxaw ci kanamu borom bi di wax fam ko def nga la way sëñ bi lépp loo xam ne rus naa taxaw ci kanamu yàlla ci ay dépense yoo def nga la way rus koo def fii ba ngay dund amul looy dépensé fii lu dul da ko ne ci nit ëllëg yowmal xiyaama loolu nag mbokk bu ma ko waxee jubluwuma ci borom alal yi rek amul kenn kuy dox ci kaw suuf tey lu dul yaa ngi xiiwal yoo xam ne boo ko bëggoon a natt wallahi du sotti in tauddu ni'matallahi la tusuuha kenn mënul wax say xiiwal xéewali doomu aadama yi waajee am na ay milliards yàlla ko nattu rek balaa tuur ndox hôpital lay dem wallahi bu ma doon a joxe milliards yépp ca li la yàlla wërsëgal foo bëggee tuuru ndox dugg ci douche bi tuur génnaat wallahi moo ko gënal milliards yooyee kon nga bàyyi xel ne yàlla wërsëgal na la wax naa la jël benn xutba ne la li gën a màgg li la yàlla wërsëgal mooy sa diine nga la way diine jooju sant ci yàlla bu ko jënd adduna naa sa diine nekk sa priorité nga nekk jaamu yàlla feeñal ko ca parlement feeñal ko bitim réew feeñal ko marché sa diine nekk sa lépp borom boobu subhanahu wa taala gis nañu ni lii la sant mboole mi ay jaamam su ko defee diine ba mu jeex ñaari mbir rek la mooy doomu aadama bi daa di sant boromam jàll wa ala na doon loolee la nga xam ne mooy waru garam mu daal di koy def ci yàlla sax gannaaw ba nga xamee ne gëm na yàlla wéetal ko mu def waru garam ca mooy léppam mu delloo ko borom bi jàll wa ala xam ne moom abd la jaam jaam mooy kan ki nga xam ne yëg ne na amul sañul moom ak lim moom lépp dafa am ku ko moom muy borom moom jalla wa ala borom boobu nag moo ñu wax ni summa la tusalunna yowma isin an naim amul benn xéewal bu ma la xéewalal lu dul danaa la ko laaj yowma alqiyaama am na loo xam ne nit ñi jàpp nañu du dara da ngaa mar rek yëkkati sa bidoo naan da ngaa mar rek dem ca ndaala wala ci frigo ba naan waaye suñu borom mu ne xoolal ndax moomu ngay naan ndax yaa ko wàcce ko asamaan wala man maa ko wàcce su ma neexoon def ko muy xat anu lu teewoon ngeen sant seen borom loolu mbokk kon mi ngi noonu na doon li ngay lekk li ngay naan li ngay solu sa jaboot lu mu mën a doon wér gi la yàlla may nga xëy suba dara metti wu la loolu lépp mbokk ay xéewal la yoo xam ne da ngaa war a yëpp xéewalug yàlla ci yow tudd ko sa lammiñ te fexe ba xéewal yooyu yépp doo ko def lu dul ku neex yàlla moom la ñu yeneen ci bàyyi salaam doon wax mu ne waaye ak yéeme mbiri jullit waay ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr jullit léppam yiw la heure bu yàlla tegee ci moom ay nattu mu muñ muñ bu rafet loolu nekk yiw ci ñoom moo ci moom heure bu ko yàlla xéewali mu delloo sant xéewal yàlla mu wëlbati ko waat nekk yiw ci moom ndax suñu borom moo dige ni xéewali bu ngeen ko santee danaa ko yokk ci dinaa ko barkeel te wallahi mbokk julit cent mille yu yàlla barkeel yemul ak un million bu yàlla barkeelul loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon ku nekk ci ñun war a góorgóorlu sant googee yëpp ngallaawaay ba ñu nañu sant yàlla ci jëmm yi ni ma ko waxee contrôler bët yi nopp yi tànk yi loxo yi ba duñ ci def lu dul neex yàlla waaye nañ sant yàlla ci njaboot gi sant yàlla ci kër gi e waay kër gi la yàlla war a sëgal xoolal ñi nga defandoo jeunesse ana ñaata ñu ci amul kër yow yàlla war a sëgal la kër kër googee santal yàlla ci ne lépp lu neexul yàlla danaa fexe ba kenn du ko def ci biir kër gi sun maam yi nag réussir woon nañ ci wallahi xam nañu ay maam yoo xam ne seen kër benn caaxaan daw fa dugg seen njaboot daan leen tënk luñ dem ci benn caaxaan waaye ñu ngi dund jamono joo xam ne nii nag ñun ñooy làmb suñu poche dem jëndi caaxaan indi ci biir kër gi lépp lu suñ maam yi daan bañ lu gën a garaaw loolu gën a ñàng loolu gën a salte loolu mi ngi feeñ ci suñu salon yi mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp toog di seetaan mbokk wallaay loolu du sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala bim ñu wërsëglee ay dëkkuwaay wax nañu ko ci suratu nahl wallahu jaala lakum min buyutikum sakana mi ngi noonu wa jaala lakum min jurudi an'ami buyuta ba fa ayee jeexee loolee dañ ci war a sant yàlla njaboot gi la yàlla wërsëgal nga sant yàlla ci ni yàlla day ñii yaa ma leen war sëgal danaa des sama kéemtalaali kàttan ba ñu nekk say jaam ca loolu yëpp la ñu yonent bi alei salatu wasalaam wax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun am ra'iyati ku nekk ci yéen daan ko laaj lan la doon sàmm ca mooy la xéewal bi ko yàlla war sëgaloon santoon na ci borom bi am sant ci woon borom bi loolee mbokk ku nekk ci ñun war a góorgóorluwaat xoolaat naka la ciy taxawee sant yàlla mooy sàmm xéewal sant yàlla mooy yëpp xéewal sant yàlla moo lay jural yàlla bëgg la ba xéewal yooyee lu mu màgg màgg màgg màgg du ca yoomal xiyaama mu nekk nag loo xam ne nii du la yàqal dara ca daraja yi kawe ya benn jaamam mi ngi nii di Suleymaan joxoon na ko nguur goo xam ne nii gannaawam du ko jox kenn ba ilaa yawmi diin mu ne ko xéewal yaa ngi noonu famnun aw amsik bi gayri xisaab yàlla tàggal ko jin tàggatal ko jinne yi nit ñi picc yi ah lu ko neex ci or ñu ko koy génneel di ko defaral lu nekk suñu borom mu ne ko mi ngi noonu waaye ismaila lu mu waxoon rabbi wala boog suleyman lu mu waxoon rabbi awzini an ashkura nicmataka allati anamta alayya wa ala walidayya yàlla xiirtal na ma sant xiiwal yi nga xam ne defal nga ma ko te def ko samay waajur keroog ba mu nee leen toogu waaye rek gis ko baa jóge yemen ñëw léegi xefe xipp muy ñëw naa haada min fadli rabbi li yabluwani a ashkur am akfur lii lépp de yàlla ngi may nattu ndax damay doon kuy sant wala damay wetti waaye suñu borom yàlla moo ko nangul ne sant na yàlla moo tax mu ne inna lahu innana la zulfa wa husna maab xéewali li muy bari bari bari bu tey bu ñëwee dara yi gën a kawe ci àjjana la nekkoon lu tax mooy xéewal yi day bewloo wu ko woon sagganloo wu ko woon la ca màgg la ca néew lépp fexe na mu dellu ci ngërëmal yàlla yàlla ma ko dëppale woon ak ngërëmam yàlla ñu yàlla dëppale ak ngërëmam yàlla na yàlla sotti ay xéewalam ci ñun zahiran wa batina yàlla ñu yàlla wërsëgal ñu yëpp suñu biiru xol yàlla na yàlla wërsëgal ñu feeñal cant gi suñuy làmmi yàlla na yàlla wërsëgal ñu feeñal ko ci suñuy jëf yàlla na yàlla yokk ñu te bañ ñoo wàññi yàlla na yàlla aar ñu te bañ ñoo seetaan yàlla na yàlla defal ñu aafiye fi dunya wal axira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin